guy gi nag tey physiquement yaram bi moom woon di mën nañ ne baax na xamuñu nag ba xam ndax loolu physiquement seereen am nag mu ngi physique bu doy wala déet ndax combat bi boo sàgganee man naa yàgg ndax li tax mooy ku ne da sëq fu dëgër dal di fa si te loxo góosam bi dafa jàpp guy gi loxo droit tam jàpp ci biir cey làmb ñaari mbër yi ku ne yaa ngi jàpp duut foo jaar. guy gi dafa ràcc parce que xar ba lay moytu moytul de Siteu ngi jéem a dóor ci faar wala mu ngay dóor ci faar Lamine noonu dara lam wàllu kenn la Lamine ku ñëw ci pind ba ngay yem jiri sekkan kay ndëndam toog bàyyi moo doon kay ndëndam toog cey Lamine ñëpp ngi ci ginnaaw Père Ali ba a toog ca sees ba moom képp moom lañ ko may toogal fa Siteu ngay lu toogal guy gi ca sees ba moom lañ ko may waaye ñu des ñëpp ci biti cey làmb wàllu teen la billaay boo ñëwee ci pind ba ngay toog waaye Lamine Siteu fa mu dawal loxo góosam ba ca kaw ngemb la ca géem ba bu la neexee nga ne fa jàpp géemu ngemb la la téebee Siteu ee eh, mu ngay wër fu mu téewaat loxo gu droite ba lu bëgg mbaa wër ndombo wala lan wër la bëgg de moom Siteu dafa bëgg wër guy gi waaye Lamine guy mbaa tarale ko dina yomb wër ndombo guy yaakaaruma mu yomb de Lamine guy na mu toll maa xam guy Lamine eh bëtt la bëgg de kottu la bëgg dina daan dina daan guy gi bañ na laa ilaaha illallah kottu la ko guy gee ngay résisté de guy gee da koo bëgg kot xar ko waaye guy gi bañ na guy gi daa mel ni dafa andi tey doole de cey guy gi ak Siteu guy gi ak guy gi ak kott la koy def eh Siteu Gouye Gui daan na ko mott na ko. awaaw ah, Doudou yaay lii nag wala teel la ku ñëw ci bind ba ngay daan ko eh Lamine Gouye daan na ko jël bu rëy mott na ko leer na wala lan lu arbitre bi bëgg a wax Gouye Gui daan na ko jogal Lamine jogal da koo batti daan ko Lamine Gouye Gui def na affaire. laa ilaha illallah xoolal gaa daanu yesi gaa daanu gandri eh dafa mën mbotte noonu laa guy gi day bëre guy gi daa xoolal lii oh Lamine Seck Lamine Seck waxoon naa lii Lamine oh waa guy gi la oh. Mass ñu sant yàlla. Mass tey sa mbër daa ñëw tey bëree loolu xaaroon ngeen ko ci moom. xam nga guy gi dafa bokkoon si làmb ji. damba benn instant bëgg a génn boppam si làmb ji. nit ñi woo ko ay mbokam ni ko mbër si làmb ji nga bokk. ku xool guy gi tey xam ni liggéey na. ku ko xool xam ne ma ngi si état. mais lépp rek dañ koy teg si loxo suñu borom. si te mënoon na daan guy gi parce que champion la. man sama mbër la dama ko bëgg personnellement dama koy ñaanal rek bu amaat beneen